ndeysaan mu ngi noonu ndaanaan xoolal dama def benn action xoolal dama def benn action grand goro dama def benn action bu grand dama jékki-jékki rek toog toog te Liss Ndiago fi mu toog jógewu la ñëw xoolal raful xoolul liggéeyuwul maanaam bii du la amul allah bu ko teg toog yow kii boo nekkee gis am problème de grand te ngaa problème bi mooy xale bi est-ce que projet yi fi jëlee keroog moo tax ba ñëwul wala. non jàmm ko téye rek jàmm ko yàlla ah, defal jàmm waaw yàlla ko yàlla defal jàmm waaw di ko defal jàmm nag wala cinq incha allah. nan ngay waajal le cinq. waaw le cinq liñ doon waajal rek lañ maa ngi nuyoo ñëpp nuyoo ci buñ ci joxe yëpp di nuyu sama papa Emerson di nuyu sama nijaay Sadio uh-huh. di nuyu ñëpp di nuyu ñu fi toog yëpp di nuyu mbër yëpp waaw di ñaanal Sénégal wala fi yàlla def jàmm di nuyu sama nijaay ordinateur bu baax waaw moom amul lu koy wax barki yàlla amul lu koy wax. man de déggoo lu ngeen seq. këf gël. yow yaay këf gël. waaw këf gël lañ seq. ñu ñëw bàyyi soxla. mooy kan. Zarko. moom laa soxla ñu jàpp mu mag. waaw yow jaay ko. moom laa soxla dañu naan avance booy. dafa ay ñëw dugg bi mbaam. mais lay ci. nañ ñëw moom laa soxla xanaa da nga pare ci ku ñëw may waxal la ma soxla laa bëgg parce que wool bi nga woo ko woo ko loo woo ko xam nañ ko bu baax booy tudd ne neen arène nationale une heure bii la wala mbir yi tëj stade bi mu teg billaay wallaay ñu tëj stade bi boo dañuy tëj stade bi boo dañuy dajale ay tout temps ñu toll nii nii nii di dajale te biir la nay romb naa ne mbir mi ñu ngi dajale stade bi billahi wala aw ma seen fay wala yow tax ngay xaru yow yow naa man dara xamoo pigil laa rek rante man doomu pigil laa pigil laa juddoo pigil laa yaroo bu nuyu yëpp bu nuyu waa kaso bi yëpp nag waa tàmbe noor maa ngi nuyu bu baax bu nuyu waa saanak bu ko jox bu doon nuyu bu doon nuyu jogaw bu nuyu ñëpp ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu ñoom Omar Sande ñoom Araboor sama booy yi fi indi ñu àndal ñëpp maa ngi nuyu li fi yaayoo yoo xamal lu mu liggéeyee na ko xeex incha allah lu muy bon laay def day bëri day xeex Okay, we don't agree.